ami ami internet univers info Dakar plus ak Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay euh, tey nag ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy jëppal pour assister benn ndogu boo xamante ni xale bu ndaw moom moo koy def xale la ci âge mais wax dëgg yàlla mag mu am ñam la ndax lii mu def nii lii mu jot a nii à travers PC yi ngeen di gis xale du ko def muy ndax moom la ñuy fekki tey fii si Japol mu ànd ak ay xaritam ànd ak ay collègue di def benn distribution ndogu bu am am solo mu ngi ni toog sama wet dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ngeen bokk internet yi bala ñoo li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ndaxte maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay di nuyu képp ku toog di ñu seetaan maa ngi leen di nuyu yéen waa Dakar Buzz euh, ak képp kuy fan sa rek. Mm-hmm. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu wér alhamdulilah. te koor gi noo koy dundee. koor gi ah sant yàlla jaamu yàlla la jaamu yàlla la ñu ngi koy dund. comme ñëpp niñ koy dundee macha allah weer bi moom weer bu sell la. ndaka yow bi nga jàpp nii est-ce que yaa ngi doon woo. damaa jeex. Ah, ñëpp nee nañ ma damaa jeex billaay. gënal ci loolu. non damaa jeex nag. <laughs> sinon yaa ngi si jàpp. maa ngi sant bu wér alhamdulilah. gis la nga organiser événement bu mel nii. c'est pas évident parce que ay ay xale nga ñi ñëpp nekk sa ginnaaw ngeen organiser ndogu bu am solo bi euh, comment l'idée est venue et bi mooy ñaateelu édition. d'accord lii nii li ko waral déjà pour commencer c'est notre première édition. ñu ngi koy door a def mais ndaxte famille yi ku ne xam na ni que euh, ndaxte famille amoon na depuis 2015 ñii ñoo ma daan gunge temps Petit Gallé ñi ngeen fi gis yëpp ñoom laa doon àndal 2015. ñi bees ñi peut-être tuuti lañ ci rek mais ñi ma doon àndal vu que commencé naa sama carrière solo léegi maa ngi ci musique bi débuté naa sama carrière musicale ñi nga xam ne ñoom laa doon àndal démb ak barki démb ñoom laa jël àndaat ak ñoom tey ngir ñu gunge ma parce que miinante nañ xamante nañ suñu jikkoo yàgg nañoo yéeg ak daanu yàgg nañoo dugg ak génn di xàccandoo di dóorandoo tey ji ñu ne pourquoi pa di sama son génnee nii ci weeru koor bi pourquoi pas tamit ñu def euh, benn euh, don joxe ndogu en même temps joxe waale ndogu tamit ci koñ bi c'est une très bonne moo tax loolu tey ji euh, lu rafet la muy lu war ñëpp ku ko am même bu dee benn tàndar ba nga jël jox ko nit rek yàlla lay fay te yiwu yàlla moo jara moo jara wut loolu rek lañ ci wut. dañu gis ni ndogu yu bari nañ trop trop trop surtout célébrité yi da nga dañuy gis chaque jour chaque jour célébrité yi di organiser ay ndogu et tout euh, yow ci mouvance boobu noonu nga topp wala da nga senti ni en tant qu'une personne boo xamante ni yaa ngi ci dëkk danga nga a def loo xamante ni vraiment pour li njëriñ waa dëkk bi waa koñ. bu ko. non pas filmé mais dañu gis dañ koy organiser célébrité yëpp ay organiser léegi. d'accord donc ñoo xam ne dañ koy def nii parce que dañuy topp mouvance bi mais humainement am na ñoo xam ne dañuy sentir def ko pour euh, rendre service à des gens quoi. d'accord ñi xam ne ñoom nga dëkkal. ñun bokk ñun pour rendre service la parce que man bu dee ci lu baax bu dee lu baax la jëf ju baax nangu naa cee roy nit. du dëgg roy lu baax moo gën roy lu bon du dëgg. kon bu dee ñëpp dañuy def lu baax du sax roy mais juste lu ma war la mais nangu naa roy ñooñu li ñuy def ndax lu baax la. alors euh, lii ndaw. budget bi ci ñaar la toll ak kan moo nekk sa ginnaaw. Euh, budget bi nag euh, mu ngi toll ci un million deux cent waaw moom la ñu frais ci li million deux cent mais sant yàlla mu am suñu nit yu baax yoo xam ne jàppale nañu vraiment mais ñu seen tur di feeñ. ak ñun tamit ndaxte famille yi ñun tamit ku ci nekk def ci sa doole. macha allah ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañu nag dañuy di ay nit yoo xam ne nit sutura lañ bëgguñu ñu waxaat seen tour mais bon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm waaw. ñu ngi fi jot a gis ay célébrité mais Fatou Sarr moom c'est pas la première fois ñu koy gis sa ay événement c'est quoi vos rapports. Fatou Sarr moom avant sax avant may wëy la man ak moom ñu ngi ñu ngi xamante 2013 2014 boobu commencé gu ma petit gaale siiwa gu ma kenn xamaguma mhm. ñu bokkoon école bokk classe man moom. macha allah yàlla def ba tey ba ñuy samp ndaxte famille moom ci ñu ko samp ci la bokk 2015 ñu ñëw tey jii nag ba 2024 macha allah di organiser lu lay li ku ne xam ne di man Fatou saar mooy ndaxte ndaxte mooy Fatou Sarr ni ngeen ñu gisee noonu du ay yaay ak doom de ah. man ak moom kenn lañ. Mhm. yéen ñaar kenn ngeen alors ñu ñëw si sa carrière solo bi ngay wax euh, commencé nga def musique. et ñu gisoon la à un moment donné aussi nga doon def euh, présentation à la TFM et tout donc ñaar yooyu naka nga ko mën a naka naka nga ko nar a gérer. Euh, bon c'est pas c'est pas c'est pas si difficile parce que déjà loo gëm bëgg ko nit looy def def ci fay fayda gëm ko bëgg ko yàlla dala ci teg loxo peut-être yan bi nit ñi mooy foog dina diis dina diis tuuti ci yow de mais loo diisalul rek du diis te lu ma gëm la lu ma bëgg la mbirum télé bi lu ma bëgg la. lu ma gëm la mbirum woy bi lu ma yàgg bëgg la te lu ma gëm la kon yàlla mu ma ci jàppale te sant yàlla bu wér a wér mais genre bu fekkee des fois da soxla di dem studio nga am plateau mu yàq sa temps yàq say répétition wala yàq sa euh, section studio loolu aussi est-ce que du handicapé carrière musicale non non di ci def dara parce que ku nekk euh, dangay def sa planning heure yi nga xam ne heure liggéey la déjà pour plateau yi je pense que matinal bi la à partir de 13 heures lay jeex su ma paree damay nekk ci samay activité dem studio wala studio mën naa bàyyi sax bu guddi ma door a dem wala yenn saa yi ma bàyyi ba ngoon gi nii ma dem aw ma ci problème. carrière musicale bi lan ngay lan ngay waajal. carrière musicale bi nag ah xam ne ni que ndaxte door na. raa bi raa na ne ndaxte. loo seeree rek mu seere du rek ay daanaa na fi nekk ay artiste dafa fi nekk macha allah euh, ñu yàgg jàng nag ci seen ginnaaw ku ne na ni que ndaxte bu ñu nee ndaxte ne ndaxte seen petit gàlle rang bi serré na mais ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ dañuy ñëw rek ànd ak ñoom du dëgg. Mm. sant yàlla bu wér. Ah, ak ñoom. bien sûr. mais boo ànd ñoom ñu suufal la nag. loolu yàllaa ko du nit. <laughs> mais mais mais événement bi lan moo tax nga defee ko fii. sama koñ fii laa dëkk Derklé. non dëkkatoo fi de. non Derklé laa dëkk. Ah. sama koñ la. Ah. Derklé laa dëkk. ñii laa yàgg àndal ba may doon ñii laa yàgg dool ñu ay nit yu ma bëgg ay nit yu baax baax a baax nit ñu gisee nii billaay man du ma ne sax lii ndaxte loola mais dama naan ñun ñëpp la ku ci nekk bu taxawoon ne moom moo organiser ndog bi du ma ci wax dara parce que ñun ñëpp kenn lañ on s'aime macha allah yàlla ñuy cat seexlu d'accord je veux pas rentrer dans ta vie privée hein, comme ni ko ñu bari di comme ni nga ma ko ñaanee sax d'ailleurs laay wax mais il va falloir que yenn yu ndaw ñu waxtaan si parce que tu es une célébrité te nit koo xamante ni nga nit ñi dañ lay gis di la bëgg amaana ma ne ko nit koo xamante ne dañ lay gis lépp kon amaana yow euh, donc buñ la gisee nga toog wax ji bari détails yi bari il faut ñu laaj la nga tontu si une bonne fois pour tout mu leer si bopp ñëpp c'est pas pour dugg sa vie privée sincèrement parce que yow buñ la laajee doo wax lu leer Mario buñ ko laajee mu ne yow xolom nga et tout te yow dañ la muuroon nga dem sa <laughs> ji fële nga xamante ne moom mooy Kër Massar tey fii nga organiser affaire bi donc c'est quoi le problème ndaxte da nga divorcé wala divorcé. bon. ndogu bi ñu ngi koy ndog ci jàmm te ñaan nañu yàlla eggali commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim oh, eggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin macha allah ñëpp ndogu ñëpp ñibbi ah ci jàmm ne ah ndog bi kat eh, yéene bi yeggoon na loolu daal lañ bëgg mais bu fekkee dafa am ku lay gis si tere bi bëgg la bëgg bëgg bëgganteeg yow am jot naan kii ma ngi ci bu mu sëy ba tey est-ce que loolu du yàq bu bari gisoo ñii di yóbbu café geeg yooyu c'est très important après ngeen jël ma ci ay vidéo yooyu jël nañ ko ba pare jël ngeen ko waaw loolu kay baax la taw féex la mais danga may tontu ci li ma la loo wax dama ne bu fekkee dafay am nit koo xam ne da gis si tere bi bëggal la boppam am yéene def euh, def la na wala dara Euh, di njortu ni kii ma ngi ci buumu ba tay du ma ko aborder et tout est que loolu du yàq club baa ngi ni ñoom laay àndal macha allah te seen liggéey doy na waar liggéey bi mu ngi jaar yoon ñoom laay àndal te dañoo bëggante suñu biir fans club ndax famille ñoom rek laay topp góor ñeeg jigéen ñëpp a ngi ni taxaw. man laa ko mënee mais pourtant li nga wax laal tontu de non eh, ma jaaree gauche nga jaar droite. non li nga wax laal tontu yaa ma déggul de wala ku ci nekk daa bañ a dégg moromam rek. fu ngeen ñëw nii euh, ndogu ndaxte famille ah sant yàlla. dinaa gis ñu la ci mosam moom ndogam Mario famille. ndogu ndaxte famille ngi neex sant bu wér. sa ndogu daa nga lijjanti. waxuma dara de. <laughs> mais carrière musicale bi ndax ah. il faut que ñu waxaat parce damay gis ñu bari artistes yi léegi dañuy cover rek. wala ñuy reprendre son jàmbur et tout est-ce que yow pare nga pour euh, jël beneen yoon je veux dire par là di bindal sa bopp ay textes yoo xamante ni yaa ko moom. di créer sa bopp ay sonorités. man déjà damay bind. ah dégg nga li may wax. yaa man man man damay bind. ok damay bind macha allah damay bind man ku ma xam xam ne dama yàgg bind ay woy moom c'est depuis toute petite ba pare ñi nga xam ne dañuy cover waat woy loolu. man je ne trouve pas que c'est un problème parce que xam nga la moo tax nit ku reprendre aat wayu jàmbur defar ko hommage loolu dañ ko war a soutenir parce que sunu biir dëkk bi dafa am ay ndaanaan yoo xam ne tey jii dëgg la ñu ngi def lu extraordinaire mais dañoo dem ba nëbbu ñun nouvelle génération bi ñoo leen mën a waat ngir delloo leen jukkal man loolu foofu laay wéer ko fa mais man personnellement en même temps tey jii su ma neexee mun naa ko fa benn way comme bi ma génnee ni yaa rasulilah ma rendre ci hommage ki nga xam ne c'est une légende dans la musique sénégalaise muy Ami Collé Dieng ku ne xam ne ni ko gëj nañ koo gis mais baatam waruñu koo fàtte te ay wéyam waruñoo dee parce que ay wéyam dañoo nekk wéy yu riche riche riche en parole ci musicalement techniquement lépp moo tax ma reprendre at wéyam ngir rendre ko hommage. sax xam ne ki gën a naqaree ci Sénégal nga imité. yii dafa naqaree imité loolu moom j'avoue loolu moom j'avoue donc comment tu as euh, ngeen si tànnee dama demoon émission bi may def émission euh, weekend start bi paase yàggul. ma dem rek ñu ne ma woyal ñu benn woy ma taxaw ne leen bàyyi leen ma woyal leen woy Ami Collé woy ko. sama baat bi xaw naa dee ma woy ko après ma juge fa bi ma ko woyee nag sentir affaire bi dama jóge émission tak jël si jubal studio woyal maestro ne ko allo man ko damay dafa am lu may prise mu ne ma ñëwal. ñu def ko quatre heures de temps noonu lañ ñu def cover bi mu dugal son bi ñu commencé ok d'accord maa ngi ñëw yaay suñu yónneen be muhammadu rasulillah nabi man gëm naa yaay xayru xalqula macha allah ñu dem fa def lu nice lu vite fait ñibbisi ñëw clipé ko parce que booy rendre hommage nit da ngay joxaale woy bi valeur mu jël suñu temps clipé kontaan nañ ci bu baax te di ko man ndaxte je t'aime fort. woo naa ko nag ba sonn mais dama kaa jotagul. waaw xam naa ne dinaa fa dem incha allah parce que man dama ko bëgg man ma ko bëggal sama bopp ndax ndaanaan la te ku ci roy ci moom doo réer. la nga dem ci activité. parce que def si. kontaan naa maa ngi daw balaa ñu maa dóor ñoom moom ñoom moom.